asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Abdoulaye Ba responsable politique Ndiarème lay bokk ci parti bi ñuy wax APR. sant yàlla euh, sant yàlla am fierte bokk Sénégal ndax Sénégal depuis 60 ba léegi euh, ñi ko jiite euh, kenn si ñoom démérité wul deful moins que ce que le président Macky Sall pour man def na li ay prédécesseur am def muy delloo Sénégal cër bi mu am ci àdduna bi. muy euh, Sénégal di réew moo xam ne ay nit yu am valeur ñoo fi dëkk nit ñu fonk seen kàddu ñoo fi dëkk euh, jàngat boobu laa ci njëkk am ginnaaw bi ma sant yàlla bu baax am fierté aussi ci parti bi ma bokk parce que parti bi ay valeur moo ko moo ko moo ko taxawaloon ay valeur moo taxoon parti bi juddu suñu demee ba def exercice du pouvoir pendant 12 ans ou 11 ans valeur yooyu nga xam ne moo taxoon parti bi juddu ba tey ñu koy gisaat ci am nit ñi ñu ko doon incarné loolu fierté la ci ci ci bokk ci parti boobu. su fekkee am na xat-xat ci nekk bi ci APR mooy kon dañu nekk ak nit boo xam ne ñun suivre wuñ ko déglu wuñ ko. je pense que Macky Sall c' un visionnaire c' est un homme bi muy créer alliance de la république créé wu ko tout simplement parce que fa amoon plaisir créer alliance de la république da ko créé woon. parce que fa amoon ay valeurs yu mu gëm ay fondamentaux yu mu gëm muy Sénégal ay Sénégal doomu Sénégal mën nañ ko développer mën nañ ko porter. je crois que programme yoonu yokkute la proposé Sénégalais yi Sénégalais yi ko. mais war na c'est un homme d'état bi mu ñëwee ci biir exercice su programme yoonu yokkute boobu bi mu ci bi mu ci demee tuuti dafa xuus créé lu ñuy woowee Sénégal émergent horizon 2035 je pense que même président Macky Sall comme ni ko constitution bi waxee na éliminé woon septième septennat bi pour mën a am ñaari quinquennat même bu fekkoon dafa nekkoon ci boobu ba gagné pour arriver à processus c'est pas seul président Macky Sall moo ko mën a réussir un Sénégal émergent horizon 2035 dama yaakaar ne loolu ñun ñi bokk ak moom war nañ gën a mën a lire la président Macky Sall gën a mën a traduire vision boobu mooy jot euh, l'émergence pour ñu jot ko faw ñu ànd ak benn projet boo xam ne ay nit nit ñoo koy incarné ñoo koy ñoo koy def yaakaar naa loolu projet bu sut président Macky Sall man jàngat boobu laa ci am pour wax ne ñun contrairement ak ñenn ñi ni ko xalaatee pour man ñun waa alliance de la république ñun Benno Bokk Yaakaar amuñu difficulté amuñu problème parce que ñun ñoo nekk ci pouvoir di exercer loo xam ne Sénégalais li mu la doon wax woy président Macky Sall am na bilan waaye comme président Macky Sall am na bilan te li ñu doon xaar ci moom def na ko mooy continuité loolu président Macky Sall commencé avec le Sénégal émergent am nañ programme bu leer bu wóor vision bu claire bu ñuy délu déroulé bu Sénégalais yi commencé gis seeni résultats BRT euh, TER j'en j'en passe bëgg bëri na loo xam ne président Macky Sall def na ko désenclavement bëri na infrastructure président Macky Sall def grâce au PSE moo tax mun ko def kon ñun amuñu problème mu continuité amuñu problème mu euh, li nga xam ne président Macky Sall def na ko fi mooy suñu bilan mooy suñu projet parce que lu nit ñi mën a gis la lu ne fànk kenn du ko jeex ma jàpp kon ñun ñoo war a dellu si waat pour wax nit ñi ne Macky Sall il a dit il dit je cesse pas mes activités il a je vais continuer à faire ces activités kon ñun ak moom ñooy ànd mu nekk P ñun ak moom ñooy ànd mu nekk beneen position ñun ak moom ñooy ànd pour gën a porter le Sénégal pour mën a atteindre l'objectif d'un Sénégal émergent en 2035. je je reviens pour dire que <clears throat> ñun sénégalais yi souvent waxtaanee daf ñu neex quoi mais tey Sénégal bu fekkoon waa APR yëpp yëpp dañoo génn ñoo bëgg nekk candidat c'est légitime pour eux bu leen neexee ñoom ñu nekk am projet wu nekk candidat pour nekk président loolu suñu parti terewu ko kenn. Euh, coalition Benno Bokk Yaakaar je pense c'est constitué de 200 partis ku mu neex nga ne candidat nga mais yaakaar naa. du nit bi moo ñu important moo ñu amal importance mais ban profil moo mën a porter le projet du Sénégal émergent pour horizon 2035 profil boobu bu fekkee Bala war a sant su fekkee Diallo la war a sant su fekkee Diop la war a sant je crois que profil bi moo ñu koy wax bu ñu defee profilage yi ba ñu xam ne nii la war a sant mais pour ñun c'est pas important ki muy doon important wul mais kan moo mën a porter projet boobu moo important yaakaar naa am na ay nit ñu dégagé wu si biir nit ñooñu faaw ñu xam ne kenn la ñuy tànn kuñ ci tànn yaakaar naa ñoom seen bopp comme ni ko président Macky Sall waxee le avant le parti le patrie pour le Sénégal je pense que ñun ñëpp dinañ teer suñuy ambition xool exclusif boobu ñu may ko président ak les leaders de de de la coalition yaakaar naa ku ñu choisir pour sa profil ñun ñëpp à de à de bons militants disciplinés war nañ ci mën a ànd pour mën a àggale sa projet bi nga xam ne commencé nañ ko te mi ngi commencé jox satisfaction yenn Sénégalais yi Sall moom euh, defal nañu loo xam ne xamu ko sax. ci euh, déclaration bi mu def parce que delloowaat na dignité homme politique parce que nit boo gis am na nit ñu ñu am kàddu gën a farlu gën a taxawu gën a remobiliser suñuy base gën a jaay aussi suñu projet muy le PSE bi nga xam ne président Macky Sall teg na ko suñu kanam nga xam ne moom mooy suñu programme mooy suñu centralité démarche pour atteindre l' émergence en 2035 ci la ñuy gën a taxaw gën cee dox gën cee wax gën ko yaatal gën ko fesal gën a fesal aussi que Sénégal am na ay nitu valeur Sénégal pays de valeur la suñu rakk yeeg suñu jarbaat yi nga xam ne ñun ñoo am responsabilité wax ak ñoom dinañ leen gën a yee gën leen a étiqueté gën leen a xamal ne xeex bu jotee da nga koy xeex mais su liggéey jotee aussi dañ koy liggéey te Sénégal je crois que l'heure de la remobilisation vers l'essentiel a sonné muy aller vers l'émergence en 2035 te yaakaar naa ne ci dal ci continuité lañ ko mën a atteindre rek maanaam nit booy wut réew foog ne soo ko amul si violence doo ko am euh, xëy na sa xam la mais gëw ma ne loolu xam bu taxaw la Euh, Sénégal du réew moo xam ne dafa am commencé 2000 Sénégal commencé wul 2000 Sénégal mi ngi commencé depuis 1960 Sénégal ba deux 60 ba 2000 dafa amoon réalité yu fi nekkoon en 2000 ba 2012 mu am situation bu ñu dundu dund 2012 ba 2021 22 bi ñu nekk 2023 mu am ay situation ñu dund mais bu fekkee xale bi juddu 1990 jàpp 92 bi 2000 di jot mi nga am 8 ans ou 9 ans. kooku bi Sénégal di nekk Sénégal xëy na euh, lim ci xam bariwul bu jàppee ne 2011 mooy premier lutte bu libéré Sénégal dafay nax boppam de Sénégal les gens se sont battus dañ doon xeex mais bu toog jotee dañuy toog waxtaan pour mën a avancer je crois que code consensuel bu 92 bi tax sénégalais bi mën a voter à l'âge de 18 ans ay xeex ak ay taxawu ñoo ko waral ba loolu am mais bi ñu demee ba waxtaan jot dañu bàyyi lépp ñëw toog waxtaan kon réew mi damay mooy ñu am raison garder wax ko fi ñu ko war a waxee parce que bu fekkee da nga am loolu naqari ñu ne la kaay wax ko fi nga ko war a waxee nga ne duma ko fa waxee ça dire que li nekk ci yow waxooñu ko en tout cas may ñaan appel ci samay doom samay rakk samay jarbaat réew mi seen réew la Sénégal nekkatul Sénégal boo xam ne amul amul possibilité Sénégal bi am na possibilité yu bëri possibilité yooyu nag bu fekkee ñoom ñooy créer condition yi tax ñoom duñ ci jariñu ah seen problème lañ koy def rek seen bopp lañ koy def parce que képp ku leen wax ne taal leen dëkk bi yàq leen dëkk bi mooy tax ngeen am bien kooku mi ngi leen di nax bien-être lu koy indi mooy kalm lu koy indi mooy xam lu koy indi mooy formation bien-être lu koy indi mooy environnement bu sain te loolu nit bi boo jàngut amuloo formation bu fekkee ne defaroo sa réew yaa ko yëg te Sénégal bi ñu jëm bokkut ak Sénégal bi ñu jóge Sénégal bi ñu jëm si président dit que budget bi 700 7000 milliards la ça veut dire beaucoup de choses ça veut am na rentrée yu ñuy xaar yoo xam ne jóge na feneen lu dul ci port bi jóge na feneen lu dul ci ci ci ci ci aéroport bi mi ngi am feneen fu muy jóge pour Sénégal mën a atteindre 3 7000 milliards kon Sénégalais bi moo war a am raison garder sàmm njariñam boobu nga xam ne moom moo ko te bañ kenn yàqal ko ko parce que ñoom seen avenir la daanaka ñun du mën a jeexal nañu mais lépp lu fi nit defit ñoom nga koy defal ndax cadre boo fi créé pour Sénégal